أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأحباب والسلام عليكم ورحمة الله
waaleykum salaam
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli si yonente bi alayhi salaatu wassalaam di ñaan yàlla subhaanahu wa taala si turam yu rafet ak melokaanam yu kawe mu jël xéewal bu bari bu ànd ak yërmande ak barke mu dolli ko yonente bi alayhi salaatu wassalaam defal ko ay soxnaam ak ay saxaabam radiallahu anhum ajmain ak képp ku teg tànkam si njàngale yonente bi alayhi salaatu wassalaam ba saa di taxaw gannaaw loolu ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal tawfiq ak sadaad di leen wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di am mbégte bu mag toog ngir nafar lii di xam-xam surtout muy xam-xamu sharia xam-xam boroom xam-xam yi dañ koy xamle léeg-léeg ñu ne moom mooy contraire réer déddu aljahal si wàlla làng waaye bu ñu waxee xam-xamu sharia mooy mooy maarifatul xaqi wal huda bi dalilihi mooy nga xam dëgg xam jubu alquran ak sunna xam aussi seen firne da ngay xam ne lii xam-xam la dëgg la njub la waaye nga xam ay preuve am si alquran wa sunna maanaam ay source am kon xam-xamu lislaam ku koy jàng yaa ngi jàng lu rëy a rëy xam-xam bu lay xamal sa borom xam-xam bu lay xamal sa yonent xam nan ngay jaamuye sa borom xamit nan ngay roye sa yonent loolu nag mu ngi jaar ci séminaire yi nga xam ne léeg-léeg dañ koy organiser yàlla dogaloon na ay at ba at bi weesu bokkoon nañ jotaay di jàngat lii di kitaabu tahaara mooy li jëm si laab xam naa mënoon naa laaj li jëm si wàllu taxaara am naa fàtte nañ yàlla dogaloon jour bi bi may jeexal séminaire bi dama pare rek dama umra ji dama jóge fii rek ñibbi kër ga dem aéroport dem umra ji yàlla na yàlla nangu umra bi liñ fa ñaan ñaanal ko ñëppit yàlla na ko yàlla nangu te ren it ñu ngi fas yéene aussi bu séminaire bi pa jeexee le six ñu demaat omra yal nañ yàlla waaw déwén incha allah yal nañ bokk ñu ñëpp ñu demandoo loolu yàlla subhaanahu wa taala mën na ko te loolu yomb na ko séminaire nag am na njëriñ bokk na si ëttu ëtt la boo xam ne dang ay jullit ñoo fay daje ngir jàng fa xam-xam ci ay fan yu néew ñu tënk foofu bunt yu rëy rëy ci buntu xam-xam loolu day am am na jigéen yoo xam ne ay boroom xam-xam yu mag la ñu daje woon fële Riyad lan moo taxoon ñu daje ñetti fan di jàngat lu jëm si wàllu ahkaamul xayd lu jëm si lu jëm si wàllu règle te loolu ay boroomi xam-xam jigéen ay gëstukat ngir masala yu bari yu aju si tomb bi kon séminaire ay jour yu néew la nga mën si jël xam-xam bu bari mën nga si nafar buntu xam-xam boo xam ne ay ati at nga ko mënoon a gëstu waaye ñu tënkal la ko si ay fan yu néew loolu nag day fekk sa yaram bi teew sa xel bi teew sa lépp de ngay teewal base bi nekk yéene bu sell ibnu juray ji nee na dañ doon sàkko xam-xam mais duñu sellal waaye yàlla subhanahu wa taala moo ñu forcé ñu sellal ngir xam-xamu lislaam loolu moo koy lal nga sellal ngir yàlla yàlla jox la ko wattaqullaha wa yuallimukumullah ragal leen yàlla yàlla xamal leen beneen bi it fan yi nga xam ne ci la séminaire bi di dem mboqoo dina si am al uxuwa al islaamiya muy mboqoo te yàlla doongu tax xamante koo xam ne xamoo koon léeg-léeg sa danga ko doon dégg wala sa ay audio nga doon déglu yàlla si mbaaxam ngeen am occasion toog di nafar xam-xam moo xam ki koy joxe moo xam ñi koy déglu ñu xamante si ay fan te yooyu xamante dafa bokk si jubluwaay yi tax yàlla sàkk doomu aadama yi loolu yi danga koy am si séminaire beneen bi bëgg sa mbokk jullit bëgg xam-xam parce que yéen ñépp seen jubluwaay mooy ñëw jariñu ñëwoo fi ngir nelaw wala ko mbokk mi ni mu ko doon waxee lekk yu neex wala nekk ci ay débat yu neex yooyu yëpp baax na waaye yow jubluwaay dëgg-dëgg mooy defaru defaru si wàll xam-xam defaru si wàll jikko ak aussi jël ci say mbokk jullit defaru aussi ci organiser wu xool sa mbokk jullit yi nu ñu nu ñuy nosee affaires yi heure bi heure julli la heure nelaw heure cours nga xam ne ñépp loolu da nga ciy jàngee mbind pour bu vacances yi jeexee nga mën a continuer ci anam boobu kon séminaire am na ay njëriñ fu muy gën a amee njëriñ mooy buñ demee booy tàggatoo lu gën a bari ku yàgg di dem séminaire tàggatoo bi day métti lool si ñenn ñi am na ñoo xam ne sax du ñu fekkee tàggatoo yi ngir ni muy méttee si ñoom sa mbokk jullit xamatoo kañ ngeen di tasewaat donte yooyu dafa war a di am si diggante maanaam ay trois mois yu nekk wala quatre mois yu nekk ñu daje dina faraat xam-xam kon jàng xam-xam am na solo lool ma bañ a guddal foofu su loolu wéyee nag thème yi ñuy jàng ci année bi ñaari thème la benn bi day dem ci alxaydu wa baadu ahkaamihi muy règle ak lenn ci ay àtteem kon buntu règle mënuñu ko jeexal loolu mënul jeex ci benn séminaire ngir bunt bu yaatu la wala ay masalam beneen bi day dem ci assalaatu wa ahkaamuha julli ak ay àtteem mu nekk nag bunt yu am solo yépp a ñu concerne moo xam góor la wala jigéen kon muzakkira bi mu ngi tàmbalee bismillahi irrahmani irrahim bismillahi irrahmani irrahim boroom xam-xamu lislaam yi dañ koy tàmbalee seen bind walla lépp loo xam ne am na njariñ amul nag dalil bu wër bu ñëw di wax ne bismillahi irrahmani irrahim dañ koy tàmbalee ngir lii waaye am na ay adilla yu bare bare bare yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngale na ku bëgg a def dara wala nga wax dara na nga wax bismillah yooyu bokk na si kuy lekk lu muy wax bismillah loolu dalil moo si ñëw bokk na si it kuy naan day wax lan bismillah bokk na si kuy génn këram lan lay wax bismillah teg si ñaan bi kuy dugg toilette lan lay wax bismillah kuy dugg jàq lu muy wax bismillah kuy sol yéreem day wax bismillah kuy tëdde aussi day tëddee côté ndeyjoor bokk na si ñaan yi day wax bismika allahumma yooyu yëpp bismillah te loolu ay adilla ñoo ñëw si sunna di jàngale loolu même doomu aadama bu faatuwee yal na yàlla guddal suñu fan te ful ko te barkel ko suñ koy dugal si pax lu ñuy wax bismillah wa ala millati rasulillah kon bismillah ay adilla ñëw na si si sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam di si wax waaye nag indil ku ngéneel jagleel ko buntu loolu dafa laaj dalil bu wër yenn adilla yi si ñëw yëpp wala ahadis yi si ñëw borom xam ne dañu ne wërul ko alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba kon dañ ko tàmbalee sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñaanal waa këram ñaanal saxaaba yi gannaaw loolu ñu ne fa haadihi dawratun sharciyatun lii de séminaire charia la bi unwaan si titre alxayd comme def nañ ñaari tomb yi kon ñu ne alxaydu mooy régal wa baadu ak lenn axkaamihi si ay àtteem kon loolu mooy titre général bi alxaydu wa axkaamuhu mais comme du ñu jël àtte yëpp moo tax ñu ne wa baadu axkaamihi ak lenn si ay àtteem bu si jiitu mooy xamle lan mooy règle mënoon naa leen poser question laaj leen yéen seen bopp lan ngeen comprendre si wàllu règle bàyyi sax mu nekk question ñu tàmbalee ko su ñu waxee règle lan lañ si jublu ah nekkul kuy waajal am doom kon règle daa am relation ak doom amul doom c'est bon kon góor moom góor day gis règle góor day gis règle règle laaw wala dañuy wax indisposé ah góor day indisposé ah waaw man dama ragal jigéen ñi ne da ngeen sob lu tax ngeen yu tontu ni ndax da ngeen di gis mais garaw après ñu yéexee waaw si benn période bu muy gis gis si bëtam gis nga wax ah wala gis daa bëri ay sens na waxal garaawal sukran keneen ki deret bi génn si jigéen ah mun naa mu génn si baqana ah sama waaw ma laaj benn soxnaa ngi yëkkati waaw si péyu jigéen chaque mois waaw macha allah amul kuy dolli leneen xamu leen lan mooy règle waaw baax na kon am nañ lal laltaay kon bu njëkk bi nee na alif wala nga ne a taariful xaydi lugatan taarifu mooy xamle alxayd règle wala mbërëg lugatan si làmmeñu arab benn boroom xamam mu ñuy tuddee imaamu Shawkaani imaam Shawkaani mu nekkoon si ngir imaam Shafii wax na si téeram boobu mu tuddee naylul awtaar naylu awtaar tome 1 page 333 nee na liy cosaan cosaan nu ñu koy waaye asl source asluhu mooy cosaanu règle moom mooy assayalaanu mooy lii daw comme tey su taw bi wàccee taw bu bari wàcc ndox mi nu muy def ah noonu muy walangaane noonu nee na cosaanu baatu règle bi foofu la jóge assayalaan nee na wa fil urfi si wàllu mbaax nag li ñu jubloo lii di régal si wàllu cosaan ba léegi mooy jarayaanu damil mara jarayaan mooy daw génn bi muy génn dami deret al marati jigéen nee na cosaanu régal mooy deret boobu nga xam ne dafay génn ci jigéen loolu la ñu tuddee alxayd xayd nag am na ay tur yu bare bare ci lislaam mais tiw tur bi gën a siiw moom mooy alxayd léeg-léeg day ñëw ci texte lislaam yi mu tudd alxayd moo gën a siiw te daanaka mun nga wax benn aaya moo ci waa direct waaye boo xam ne ñetti dëë la yenn borom bu ñu bu ñu bëggee jàngal xale bu jigéen aaya bu leen concerné si wàll xayda dañoo boo demee suratul baqara da ngay xool aaya bi nga xam ne ñetti dëë ah muy lan deux cent vingt deux aaya boobu lan mooy aaya verset verset vingt deux si suratul baqara moom mooy buy wax ci wàll règle ci wàll tënk léeg-léeg day ñëw tudd alxayda léeg-léeg day ñëw tudd annifaas annifaas dina ñëw ci lu jëm ci nifaas mais léeg-léeg ci wàll làmmiñu arab dañuy tudd annifaas jublu ci alxayda léeg-léeg dañuy wax al araak al araak jublu si lii di règle si wàllu làmmiñ wala at tamsu at tamsu baat boobu day ñëw fekk ñu jublu si règle am na ay tur yu bari si wàllu lislaam bi si gën a am solo na mooy taariful xaydi istilaahan istilaahan mooy xamle lii di règle si ñiy jàngale wàllu sharia ñoom bu ñu waxee lii di règle ñoom am la liñ si jublu waaye définition bi ñu tànn soo demee si ngir yu bare bari ngir imam abi xanifa wala ngir imam malik wala ngir imam shafii soo ñëwoon tey sax nga ne nit kañ ñu waxtaan si wàllu règle de woo dañuy waxtaanee leneen parce que dafa xaw a laal sentiment nit vie privée nit waaye lislaam xamul vie privée nit dañ koy jàng lu ñu war a jàng la si bunt bi moo tax mu ne alxaydu kitaabun daai téere bu réer la lam yusannaf fiihi taalifuñu si tasnifun taalif maanaam bind ñu si bind boo xam ne yaqumu bi xaqihi jox nañ ko gëddam àqam moom jamonoom nag lay wax imaamu daari bi yaa gën a faatu rahimahullah nee na jamonoom boroom xam-xam yi taalifuñu binduñu si wàllu règle ba jox ko àqam wa yashfi alqalba joxuñu ko it loo xam ne dafay saafara xol wala xel maanaam nitu jamonoom li ñu war a xam si ay information wala ay xam-xam lu jëm si wàllu règle amuñu ko même jamono ji ñu bare bare boo toogoon ak ñoom nga leen di laaj si wàllu règle duñ la mun a tontu parce que niñ ko war a jàngee jàngewuñ ko noonu loolu boo duggoon si kër gi nga njëkkee sa yaay wala sa maam bu jigéen nga koy laaj si wàllu règle da lay eh demal fële parce que moom amaana maîtriser wul àtte l'islam yu aju si wàllu règle bokk si ñuy lu ñuy waxtaane léeg-léeg da lay wax demal si sage-femme sa sage-femme wala gynécologue nga door nga laaj ko mu door la wax lu jëm si wàllu règle mais ñoom pour ñu jox la si lu lay jëriñ dafay néew lool lii daloon na jamono al imam ad-Daarimi loolu moo tax mu ne règle téere bu réer la ñi taalif taalifa luñ ko maanaam taalif boo xam ne jox nañ ko gëddam taalif boo xam ne dafay dalal xel kon loolu day wane dañuy ñëw rekk di ko di dund ak moom te xamuñu ko dëgg-dëgg kon waxtaane ko am na solo pour ñu xam am solo xam aussi àq bi ko borom xam yi jox ku mel ni Mohammed ibnu Salih al Usaymin rahimahullah moom it nee na inna masail al xaydi bahrun la saaxila lahu nee na inna masail alxaydi masala yi aju si wàllu règle nee na bahrun géej la boo xam ne la saaxila lahu amul tefes ngir bari waay nee na masala yi dafa bari lool bokk na si masala yu aju si wàll jigéen bu gis règle ak alquran ndax mën na jàng alquran wala mënul jàng alquran ndax mën na laal alquran wala mënul laal alquran ndax mën na julli wala mënul julli ndax mën na wër kaaba bi wala mënul kaaba ay masala yu bare bare ñoo si aju kon nee na ay masala yu bari yoo xam ne mën nga wax ne dafa mel ni géej bu amul tefes kon masala yooyu dafa laaj jullit bi nga xam ne daf koy dal mu dem mu maîtriser ko xam ko kon loolu day wane importance su bunt bi ngir ne ay masalam dañoo bari wa qala al imam ahmad ibnu hanbal imam ahmad rahimahullah moom bi nee na kuntu fi kitaabil xaydi tisa sinin xatta fahimtuhu imaam ahmad bokk na si borom ñeenti ngir yi nee na kuntu nekkoon na fi kitaabil xaydi di gëstu bunt bi di règle di gëstu masala yi si aju tis asinin juróom ñeenti at neuf ans di gëstu di gëstu di dajale lu jëm si wàll règle xatta fahimtuhu ba ma comprendre nee na pour ma comprendre masala yi si aju yépp jàng naa bunt bi lu toll ni neuf ans imam ahmad ku la waa imam ahmad téeram bu tudd musad al musnad ñaata ñaata tom la am na ñoo xam ne dem nañ ba ne cinquante nangam tom la mu bind ko ak téere yi mu bind ak ndongo yi mu doon yar ñu koy laaj comme lu mel ni doomu abdallah di ko laaj ay masala muy tontu ñuy bind ba mu nekk ay téere kooku ñaata borom xam-xam ñoo jëriñoo si moom mu ne buntu règle pour ma comprendre ko jàng naa ko juróom-ñeenti at lii wane bunt bi nu mu compliqué te pourtant ay dalilam bariwuñu mais masala yi ñoo bari benn boromam dafa ne non fuqaha yi ñoo ñëw jafeel bunt bi mais bunt bu yomb la parce que soo xoolee ay adillam dalil yi bariwul lu tax ñu jafeel ko compliqueel ko ba mu compliqué yomb na si ku ko yàlla xamal waaye nag jafe na ku ko xamul cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullah soo demee si majmuul fatawa moom it nee na fa inna masail al istihadati min ashkali abwaabi tahaara nee na fa inna masail al istihada mooy masala yu aju si wàll jorgel mooy règle moom it xeet la si règle nee na masala yi si aju bokk na min ashkal yi gën a compliqué si abwaabi tahaara si muntu laab da ngay gis yenn téere yi sax su ñëwee ba buntu règle dañ koy tëb ba demee si ar risaala bu ibn abi zeyd al qayrawaani barki démb rek maa ngi vérifié buntu yi ñëw si wàll xayd di xool si téere ngir imam malik mais risaala biñ ñëwee si babal xayda dañ ko tëb ngir masala yi ni ñu compliqué ak risaala poids bi mu am si ngir imam malik kon règle am na yenn borom xamam yoo xam ne suñuy bind fiq bu ñëwee ba bunt boobu dañ koy tëb wala dañuy tënk bunt bi ngir bañ si yaatal wa qaala aydan beneen bi it cinquième bi ba léegi cheikhul islam ibnu taymiya di wax si téeram boobu tudd al istiqaama nee na fa inna alxaajata tad'u ila tabsiti masailihi wa ahkaamihi wa taalimiha linnisa nee na fa inna alxaajata nee na aajo tad'u egg na si ñu woote maanaam nit ñi dem nañ ba aajo woo li tabsiti ngir yaatal masailihi masala xayda nee na dem nañ ba toll jamono joo xam ne jigéen ñi aajo nañ ku leen yaatalal faram-fàcceel leen masala yu aju si wàllu xayda wa ahkaamihi ak ay àtteem masala bu nekk lan mooy àtteem nee na dem nañ ba aajo ñu détaillé ñu masala yu aju si wàlla xayd ak ay àtteem dem nañ ba aajo aussi wa taalimiha jàngale masala yooyu lin nisaa yi jigéen yi jigéen yi war nañ leen jàngal seen àtte yu aju si wàlla règle ngir de ñoom ñooy gis règle loolu moo tax sax boo demee si benn téere bu tudd ahkaamu nisa ahkaamu nisa benn téere la bu ibnul jawzi bind nee na boo dajale woon jigéen yu bari di leen laaj wéykat nangam Sénégal am na ay wéykat yu jigéen nisa moom xamul jigéen buy wéy mais Sénégal am nañ ay wéykat yu jigéen soo laajoon dund jaar-jaaru wéykat boobu dinañ la jox ay détails yu jëm fii la juddoo ñaata morceau la mos a wëy dinañ la jox ay détails fan lay fréquenté fan la njëkk a wëyee nee na dinañ la jox ay détails soo demee aussi si ñi nga xam ne dañuy yëngatu si wàllu aar dinañ la wax ñan ñoo si gën a siiw si jamono si lan la ñuy yëngatu jox la seen dundin nee na boo demee si ñuy sport yi soo leen laajee ñi si gën a fës moo xam discipline bu ne dinañ la jox détails yu ñooñu waaye nee na koo si laajoon lu jëm si wàllu règle du la du mun a jox détails yu jëm si wàllu règle ngir compliqué bi règle compliqué imaamu nawawi abu zakariya wax na si téeram boobu tudd almajmu nee na ilam anna baaba alxaydi min awis alabwaabi wa mimma galita fihi kasirun min alkuttab li diqati masailihi واعتنى به المحققون وافردوه بالتصنيف fi kutubin mustaqilla imaamu nawawi di boroom xam-xam bu mag si ngir imaamu shafii rahmatullahi alayhi imaamu nawawi bind na ay téere yu bëri ku may wax si ay téeram yi mu yi mu bind riyaadu saalihin moo ko bind xam ne day wax si wàllu teggin ak ban téere al arbauna nawawiya moo ko bind it yoo si wàlla ay ahadis ak ban téere moom rek ngeen ko xama Imaamu Nawawi bind na téere yu bari bokk na si rawdatu taalibin boobu si wàlla fiq lay wax nga xam ne ay tom yu bare bari la mat na sax amaana vingt tom moom moo ko bind ak ban téere al azkar moom moo bind al azkar nga xam ne si wàlla tudd yàlla zikr borom xamam yi su ñuy wax si téere yi gën a siw si ahlu sunna wal jamaa si wàlla tudd yàlla a zikr dañuy al azkar bu annawawi téere bu siw la moom moo shara aussi saxihu muslim imaamu nawawi nga xam ne 46 ans la dund yàlla daa barkeel dundam amul soxna sax dundam yépp da ko jagleel lii di xam-xam gëstu xam-xam ak tasaare ko moo tax boromam yi nee nañ imaamu Nawawi ndaw la boo xam ne yàlla dafa barkeeloon dundam Cheikhul Usaymin rahimahullah daan na wax moom dafa ñëw imaamu Nawawi surtout téere bi di Riyadu Salihin parce que Arabie Saoudi jàq boo dem seen ministère bi yore wàlla diine bi dafa ne jàq bu nekk nañ fa teg lii di Riyadu Salihin nga xam ne saay buñ jullee rek ki jiite day ubbi téere bi liir benn aaya bu nekk si Riyadu Salihin wala benn xadis pour mbooloo bi jëriñoo mu ne saay bu ñu liiree loolu imaamu Nawawi day am tiyaabu mu ne dama ko ñëwee si loolu yàlla def mu jàngale Riyadu Saalihin mu nekk ay tom benn borom xam ñu ne moom mi ñëwee woon imaamu Nawawi moom it borom xam yu bëri ñëwee nañ ko parce que saraana jàngale na ko def nañ ko ay mool mool nañ ay téeram man saraa bi bi si am sa si imaamu si Riyadou Salim ki ma ko abal mooy Omar Diallo ba léegi delloo ma ko te war na ëpp ñetti at mu ngeeg ma toujours damay dem ba bëgg ko delloo ma ne Omar soxlaagu ko xaaral ma delloowaat te sara bu yéeme la ko imaamu Nawawi sara kii Cheikhul Usaymin rahmatullahi alayh loolu nag ay effort la kon téere bu am barke la bokk na ci téeram boobu mooy almajmu moom it moom moo ko taalif bi mu demee ba ci digg bi ci la faatu mottaliwu ko rahimahullah nee na ilam xamal ann baabal xaydi bunt bii di buntu règle min awisil abwaab bokk na ci bunt yi gën a compliqué awis mooy jafe bunt yi gën a jafe ci buntu lii di feq nee na wa mimma xalita fiihi bokk na ci bunt yoo xam ne ñu bare bare dañ ci juum bari na boroom xam ne yi wax ci règle juum wa mimma xalita fiihi kasirun min alkuttab nee na bindkat yi ñi taalif ñu bare bare ci ñoom taalif na njuum njuumte yu mag a mag ci buntu règle jaawale ay masalem lan moo tax ñu juum nee na li diqati ngir sew ak xóot bi mu xóot masailihi ay masala masala yu xóot ñoo ci nekk ma jox leen misaal léeg-léeg jigéen day wan na lor day ëmb mu dem tuuti rek mu avorté deret boobu tuuru walla ëmb boobu tuuru ëmb bu tuuru deret lay génne deret boobu ndax règle lañ koy considérer walla dañ koy considérer jigéen bu am doom ah ñaar yëpp mën na jël àtte bi mais kañ ak nan la ñuy xamee lii règle la lii du règle loolu day wane nu mu compliqué nu mu compliqué loolu moo tax mu ne bokk na ci bunt yoo xam ne ay masalam dafa sew compliqué waaye nag waxtana bihi itte woona ñëw na jox solo lii di règle al muhaqiqun borom xam-xam yi nga xam ne ñëw nañ ci jamono di gëstu di xóotal gëstu ñoom jox nañ ko solo ba dem ba maîtriser masala yi jàngal ko jullit yi lu tuddee al muhaqiqun xam ne dañuy taxqiq di topp masala ay buntu di buntu ba maîtriser buntu bi ba génnal ko ay règle taalifal ko ay téere moo tax mu ne wa afraduhu ñu beral ko bi tasniifi si taalif fi kutubin si ay livre yoo xam ne mustaqil la yoo xam ne dañoo beru dañoo particulier ngir rek règle am na buntu yoo xam ne buntu spécial la si fiq ñu tuddee ko kitaabul xayd wala baabul xayd loolu day wane kon borom xam-xam yi biñ ñëwee ñoom bàyyil buntu bàyyiwuñu buntu bi masala yi yëpp la ñu dajale bind ba taalif lii di règle loolu di wane importance su jàng buntu bi beneen bi septième bi wa qaala ibnu qudama fi l mughni ibnu qudama rahimahullah wax na si téeram boobu tudd al mughni baada an dakara jumlatan min hadihi l ahkam gannaaw bi mu tuddee ay atte yu bare bari nee na wa aksaru hadihi l ahkaami mujmaun alayha bayna ulamai l umma nee na wa aksaru lu ëpp hadihi l ahkaam atte yi mujmaun alayha boroom xam-xam yi dañoo dëppoo ci atte yi mu doon wax baynal ulamaayil umma si borom xamamu xeet yi dafa tudd ay àtte yu bare bare almughni tom yu bare bare la léegi bi muy tudd àtte yooyu mu ne àtte yu bari yi ma jukki fi borom xamam yi dañoo dëppoo d'accord si ay àtteem waaye nag mu ne wa iza sabata hada bu saxee ne borom xamam yi dëppoo nañ si àtte yi nee na fal xaajatu daa'iyatun ila maarifati alxaydi nee na aajoo nañ xam li di xayd li yulama ma yataallaqu bihi min al ahkam ngir ñu xam atte yi nga xam ne dafa aju si wàlla règle nee na dañu aajo dafa dem ba toll si nécessité pour ñu xam aajo yi nga maanaam atte yi nga xam ne dafa aju si wàlla règle kon lii day wane importance u jàng bunt bi ngir ay atte yu bare bari am na yenn borom yi wax ne li ëpp ñaar fukki atte aju na si wàll règle lu ëpp ñaar fukki atte aju na si wàll règle loolu sax imaamu Nawawi wax na ko si almajmu ñetteel bunt bi mooy xukmu damil xayd lan mooy atte deretu règle si l'islam nee na damul xayd deretu règle najisun règle li sobe la règle sobe la damu najisin deret la boo xam ne sobe la du deret bu laab deretu deret la boo xam ne si côté l'islam deret bu tilim la waaye deret bu bu ñu considère sobe moo tax si aaya bi nee na huwa azan nee na sobe la aza mooy sobe kon règle aussi si lislaam bokk na si ay turam al azar lislaam da ko tuddee azar sobe la nee na règle bi wa dalilun signe la mandarga la buy wane ala bulughil mar'ati ku jigéen ki ku majeur la saay bu jigéen gisee règle rek charia nee na jigéen boobu mag la mag léeg-léeg nitu jamono da ko kii xale la charia da yow gis nga régal mag nga su ñëpp waxee xale bi charia da yow mag bi waaw kon bépp jigéen bu gis régal rek yow jàppal sa bopp si lisa mag nga mooy ku majeur nga léegi jaamu yàlla war na la at bi passé wane woon nañ lan yan signe mooy wane majeur waxoon nañ léeg-léeg day dellu si âge léeg-léeg day dellu si ay signe signe yooyu daf si am yoo xam ne góor ak jigéen ñoo ko bokk am yoo xam ne jigéen dong moo ko jago am yoo xam ne góor kese moo ko jago bi jigéen jago kese mooy ëmb signe la buy wane ku jigéen ku majeur la beneen bi mooy règle day wane ku jigéen ki mag la yi mu bokk ak góor moom mooy gént ku gént rek ndox génn si yow ngay am rapport sexuel ba ndox génn mag nga loolu góor ak jigéen ñoo si yem góor day gént jigéen day gént ku si gént rek di am rapport sexuel ndox génn boobaa ndox moomu siiñ la buy wane yow mag nga léegi jaamu yàlla war na la ñoom ñaar it bokk na siiñ bokk mooy kawar bu génn kawaru poqataan bu sax ku jigéen bu ko saxlee mag la góor aussi bu ko saxlee mag la kawaru naq siñ lay buy wane mag nga moo xam góor nga wala jigéen yi góor jagoo nag moom mooy sikkim bépp góor boo xam ne am nga sikkim rek yow mag nga kon yi ma tudd si biir ñu ñëpp bu ñu xoolee ah bari na ñu fi mag na ku jàpp sa bopp xale laa di def yëfu xale charia mu ngi lay hee gars yi waxuñu de mais man moom considéré naa la ko mag kon loolu wa dalilun ala bulughil mara day wane ku jigéen ko ku majeur la signe la buy wane ku jigéen ki mag la nee na wal aslu fii liy cosaan si buntu règle mooy aaya am na aaya bu ñëw si alquran aaya boobu source la si wàllu règle delluwaay la si wàllu règle si wàllu historique bi si wàllu aaya yi benn aaya la gis ngeen mooy lan deux cent lan vingt-deux si ban saar baqara yàlla subhaanahu wa taala nee na wa yasaluunaka an ilmaxiidi qul huwa adan fa atazilu nnisaa fi lmaxiid wala taqrabuhunna xata yathurna fa ida tataharna fa atuhunna min xaytu amarakum llah aaya bi mooy wax lu jëm si wàllu régal yàlla subhaanahu wa taala nee na wa yasaluunaka dinañ la laaj yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam anil maxiidi atte yu aju si régalu jigéen régal bi jigéen di gis ay nit dinañ ñëw di la laaj atte yi si aju buñ la ko laajee qul na nga tontu na nga wax huwa lii di règle azan sobe la yàlla subhaanahu wa taala nee na lii di règle sobe la tilim la si côté charia sobe ba bu génnee yow ku jigéen ku am borom kër jigéen bu am borom kër yow borom kër bi am soxna sa soxna gis règle yàlla mu ne faatazilu na ngeen beru jigéen yi na ngeen sori jigéen yi faatazilu nisaa na ngeen sori jigéen yi sori jaxasoo fil maxiidi période bi ñu gisee règle gis nga fii fii day wane période bi mooy waxtu bi yàlla subhaanahu wa taala nee na yéen borom kër yi ku si sa soxna gis règle période boobu mu gis règle nang ko sori bul am ak moom relation sexuelle loolu yàlla da ko aramal faatazilu bi moo aramal kon jamono bu jigéen gisee règle dafa xaraam ci sharia mu jote ak borom këram borom kër gi nag lu mu kër këri soxna si na bañ na ko stop waaw fii moom yàlla moo tere borom asamaan ak suuf wax na ci sa règle yow ku jigéen gi ak loo bëgg bëgg nag sa jëkkër ak loo ko bëgg a bëgg jàppale soñoo ko jox sa bopp foofu moom yàlla moo wax yéen ñaar ñépp da leen tere mais nag sañ ngeen bokk benn mbàjj sañ ngeen raayante sañ ngeen fóonante yooyu yëpp maanaam li ko tàmbalee jumbax bi ba si butu wóom bi loolu la ñu tere ku góor kon ku jigéen ki foofu day taqu ba dëgër jëkkëram su bëggee romb mu ne ko stop fii moom yàlla moo waa stop day bañ waaw ndax moo tax nag góor am soxna yu bari am solo waaye nag loolu justifié wul ku góor daa war a takk soxna yu bari loolu it moo tax yàlla subhanahu wa taala mu ne faatazilu nisaa fil xay fil mahid na ngeen beru jigéen yi beru jaxasoo beru fi moom mooy relation sexuelle waaye jubluñu si jigéen bi bu amee règle rek dañ ko war a abandonné wala ñu sori ko déedéet loolu ku ko def rek def nga système u yahud yahud yi ñoo doon def loolu mais fii relation sexuelle la yàlla di tere suñu yaay umu salama umu salama radiallahu anha soxna la woon si soxna yonent salaa sallam moom nee na benn bis dama yonent salaa sallam da aaye sama néeg noonu ñu tëdd ma jékki-jékki rocceeku ndànk dem changé samay yére sol yeneen yére nee na bi may dellu si pour tëddaat yonent bi salaa salaam yëg sama dellu si mu ne ma xanaa la nga gis sa régal ma ne waaw mu ne kon kaay ñu tëdd ñu bokk benn mbàjj borom xam ñu ne lu tax ummu salama suñu yaay ummu salama radiallahu anha dafa amoon yére boo xam ne su ko solee rek yonent bi salaa salaam day comprendre ne kii daa gis rek kon loolu côté communiqué la si diggante ñaar ñuy sëy waxum ne nag jigéen yi dañ bëri pexe léegi mun na sol yére boo xam ne su ko solee rek yow da ngay comprendre parce que mën na la ñaan dara nga ne ko awma ko mu dem sol yére boobu waaw yow nga toog di yoon non xanaa lim la may waaye loolu cote la boo xam ne ñaar ñuy sëy léeg-léeg du ñu wax ay geste la ñuy waxee waaw jigéen mën na sol xamal borom këram yére bi saay bu mu ko solee rek dama indisposé jarul nga may laaj wala jarul sa sa xel di dem si leneen waaw boobaa nag ma bàyyi nga xam ne lii bu mu ko solee rek dama gis règle moo tax ibnu hajar si fatul baari xadiisu umu salama boobu nee na lii buntu la boo xam ne jigéen bu nekk war na wut sopp nañ si moom wut yére boo xam ne su ko solee rek borom këram day xam ne moom daa gis règle kon fii yàlla day wax jigéen ñi nañ leen beru bu ñu jaxasoog ñoom parce que jigéen bu gisee règle bututu njurukaay bi day tijjeeku ay menace la ay góom soo joteeg moom mën na la indil ay jafe-jafe ay feebar xeetu feebar yu métti maanaam yu garab te jamono jooju day métti loolu moo tax jamono jooju jigéen bokk na si luñ koy conseil bu mu mayee deret parce que deret moo génn si moom du mun a maye deret tax na ay koor ay julli yooyu yëpp dañ ko ko tere ngir deret boobu jamono jooju ku jigéen ki noonu deret boobu di génne si moom day dem ba walla yaramam aussi da koy yëg yaram bi day soppeeku léeg-léeg nga gis mu gaaw a mer boo ko xoolee mënula xulli loo may xool léeg-léeg mënul supporter métitu règle bi am na koo xam ne biiram mooy mooy métti am na koo xam ne réglam bu ñëwee du wax day muumu am na koo xam ne régle bu ñëwee ndànk lay wax loolu nag ñañ ñoo ko war a bàyyi xel mooy jàngalekat jàngalekat boo xam ne day jàngale xale bu jigéen ne la damay génn nga ne ko noo doo génn prof bi na la doo génn léeg-léeg ku jigéen day dem bàyyi ko fi léeg-léeg mu mer yow dama lay bindee naa la may lii fekk xamoo lan moo tax su ñëwaatee laaj ko lan moo tax parce que léeg-léeg si biir nit ñi soo ko laajee lan moo tax nga génn mën na loo xam lu tax nga may laaj lool dam la tàggu yemal foofu léeg-léeg xale yu góor yi aussi da ngay gis koo xam ne day nekk ak sëram si kër gi koor jot woorul nga ne ko yow lu tax doo woor mu ne lu sa yow xam nga tontu bu njëkk bi moom mooy noo woorul mënuma woor lu tax doo woor non sam pap nekku fi di nga xam ne man maa fi nekk di nga woor mu ne ñëwal nga gis muy lijjante loo xam ne du yàgg ba kii ne ko man damaa gis règle da koy woor lu sa yoon xanaa yow lay woora nga gis kii ne ko noon di nga ko gis yooyu yëpp jaru ko su nee rek du ma woor wala du ma julli bàyyi ko su nee du ma woor wala julliwuma bàyyi ko bul insister kon fii yàlla subhanahu wa taala daf ko wax faatazilu nisa mu ne wala taqrabuhunna bu leen jege jigéen yi jege jaxaso xatta yatuhurna ba ñu set mooy deret bi dem ba dagg si ñaari anam la ñuy xamee deret bi set na benn bi mooy alqassatul bayda mooy benn liquide bu weex ndox bu weex génn si ku jigéen su génnee rek loolu signe la buy wane moom réglam set na loolu dina ñëw am na buntu bu bu am parce que li tax ma tudd ko mooy li yàlla wax wala taqrabuhunna xatta yatuhurna mooy bu leen leen jege jaxasoog ñoom lu dul ñu ñu set kon yii wane ku jigéen ki set na mooy ndox mu weex boobu génn bu weex bu génnee rek day wane kon moom commencé na di set ñaareel bi mooy aljufoof mooy ku jigéen ki jël lii di coton walla morso dugal ko ci péyam su génnee gis taqul dara loolu yi day wane moom set na mais bu génne bu gën a wane ku jigéen ki set na mooy ndox mu weex bi ñëw loolu jigéen bu normal rek su règle bi ñëwee buy jeex ndox mu weex boobu day génn wane ne règle bi set na yàlla subhanahu wa taala ne fa iza tataharna su jigéen yi demee nag ba sangu gis nga tataharna bi sangu lay firi firiwul deret bu dagg am na borom xamam yu koy firee noonu waaye li gën a wër mooy fayza tataharna suñu demee ba sangu booba faatuhunna min haythu amarakumullah boobaa yéen góor yi sañ ngeen ñëw ànd ak ñoom fi leen yàlla digal ngeen ànd ak ñoom fi leen yàlla digal ngeen ànd ak ñoom mooy fi ku jigéen ki di tuuree ndox du fu muy génnee lu mu lekk foofu yàlla daa araamal kuy am relation sexuelle ak soxnam mu fay jaar foofu kon aaye bi incha allah kii nee na ma waxtu bi jeex na mbind suba bu ñëwee ci la ñuy tàmbale ci la ñuy tàmbale leeral ko eggali lu jëm si wàllu règle kon hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم نعم